mbokk internautes yi jàllee nag jàmm ñu daal di nag wax ci ab mbir moo xamante ni nag soo moytuwul dina daal di eh, nag egg ci ay nag extrême boo xamante duñ ko mën a lijjanti muy ab tong-tong foncier goo xam ne am na ci Ndakaaru Mbaye Gueye ENG ak Mamour Diallo eh, di partager ay terrain yoo xam dañu ko daal di nag jaay à des milliards mouvement sunu gaal ca eh, kanam daal di nekk ci ay présumé Ah, daanaka nag euh, euh, euh, présumé kanam la nañ ko daal di bindee noonu lañ ko waxee ci article bi ne démb lu toll ci nag neuf dossiers objet de litige foncier ca Ndakaaru ca presse bi Mame Ousmane Ndoye dénoncé benn campagne de prédation foncière boo xamante ni ay religieux fonctionnaires des domaines et promoteurs immobiliers ñoo koy daal di nag def moom mi daal di xamle nag ne conférence de presse lañ doon def ñoo mouvement sunu gaal ca kanam Euh, wax naka ci ay présumé scandale foncier euh, moom mi nekk naka frère Massayer Gueye nekk euh, daanaka nag wax ci li nga xamante ni moom mooy ay homme d'affaires yu célèbre bokk na ci Mbaye Gueye EMG ci nekk ci benn parcelle de terre goo xam ne ma nga ca site bu Phare des Mamelles buñ sukkandikoo ci Mame Ousmane Ndoye mi nekk porte-voix bu famille Sey ay fonctionnaire véreux bu cadastre ak urbanisme modifier position plan au terrain ci littoral bu Mamelles ga nga xamante ni fu moo daal di abrité phare bile nee nañu nag niñ ko dogot dogotee mu toll ci nag onze mille mètres carrés ak ay parcelles yoo xam dañ ko daal di jaaye ak coup de milliard ci domaine public maritime sans autorisation lañ ko def euh, bu président Macky Sall mi nga xamante ni moom la loi bi daal di jox titre euh, euh, discrétionnaire de déclassement ci benn emprise littorale code bu domaine public maritime ci article dix itam leer nañ pris yi itam ci ay attribution bu chef de l'État ju sunu réew mi nee nañu nag fii entre autres bénéficiaires mën nañu nome Mbaye Guèye euh, bu EMG euh, marabout bi euh, di nag Xaasimu Mbàkke Euh, Mame Ousmane Ndoye mi nga xam dafa nekkoon ci en conférence de presse démb euh, beneen présumé scandale foncier bi itam di concerne aéroport bu Dakar Yoff euh, boo xamante ni nag 3 21 CF 44 07 DG dossier bi nga xamante ne nañu nag moom Ndoye daal di ne ab lotissement bu 2003 2004 2008 si ab IT TF 59 DG Euh, autorité en charge yi yoroon dossier bi à l'époque nekk Farba Ngom ministre bu nekkoon su Wade Abdoulaye Diop ministre du budget Vincent Max Bibi ex-directeur des domaines su Wade ñoom ñëpp dañ leen daal di nag sommet euh, maanaam dañ leen jàpp ngir ñu réparer le tort bi ñu causé aux héritiers de Dambeng euh, ci nag complicité autorité yu aéroport ñu daal di yokk itam ne Mathiago Mbissane moom itam dafa émettroon benn avis favorable bu six cent soixante mètres ci axe